ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci dalal bi ngeen ñu dalal dégg naa fan yii suñu tata tête de liste Benno Bokk Yaakaar doxantu na ndànk dugg Kédougou dégg naa dafa dugg mel ni sumbi buy dugg waaye bi muy génn dafa mel ni ngelaw moo doon génn ndax gisul ñetti nit ci waa Kédougou bu ko génn teeru ko xam nga toog ndakaaru di nax sa bopp nekk ci télé yeeg ci rajo yi ak fay ay une des journaux di nax sa bopp foog ni yow yaa téye Sénégal bis bu dëgg jotee te dëgg mooy terrain bi nga xam ni yoroo dara di nga dépenser xaalis bu bëri pour mobiliser ay nit waaye balaa meeting ba di jeex boo moytul juróomi nit duñ fa des moo tax dëgg rek a wóor ngeen may ba ma ma saw d'abord

nañ la taf yëngalal ay affaire rek nga taxaw sénégalais yi ne waa jaa ngi inauguré rek fekk dara baaxu ci benn taw rek mbir mi màbb loolu mooy gouvernance Macky Sall di wax tamit nii xam ngeen dafa assassiné woon ay nit fële ci Ziguinchor parce que moom gouvernance su assassin lañu diggante bi mu toogee léegi su ñuy dajale les crimes politiques rek war gëm na ni war na mat 30 ndax diñu ñu concerné ñun rek ñun suñu parti Pastef ñu ngi ci 19 crime politique yo xamné Macky Sall mo leen assassiné mo leen liquidé wayé waaye li ma leen bëgg wax yalla def xibar bi qui lañu fekk bi mu ñaari nit bi ñoon ak Ziguinchor procureurum bu Ziguinchor def pression ci ben médecin légiste bu jigen bu ne fofu ñu gaaw ne waji bal rayu ko waye arme blanche moko ray ñu dem ci famille wax dañu bëgg mu valable pour toutes les familles du Sénégal ku ñu jarul ju yakamti nañu jël suñu temps nous, sommes les familles il faut que nous contre expertise Nous, nous, contre expertise nous avons am code pénal c'est un droit Le procureur ni mënu d'accord contre expertise Nous, avons ñu def Nous pour décourager ñu nous ambulance nous corps de nous, ko tey lañu ñu jot ci rapport bi nee Idrissa Goudiaby a été tué par balle kon procureur dafa fen te Macky Sall waxul dëgg légui nak légui nak du yem foofu de ki ko ak kiko yondi pour mu ray ko chaîne bi yépp dinañ leen top ba fu mu sësee parce que ray ay nit dafa wara a jeex ci nguuru Macky Sall ñu ko nangu

ñu ne leen ñun suñu staff bi yëpp amul ku tudd Mamadou Kane donc du ñu jël convocation bi noonu la commissaire delluwaatee amul benn garde corps bu ñëw arrêté amul kenn koo xam ne convoqué nañ ko légalement loolu tam ma leeral ko Sénégal yëpp dégg ko loolu yëpp nag pour nañuy ralentir suñu campagne rek ndax lii moom xam nga ni yombut a am te fu ñu dem am ko fa waaye nag Macky Sall na gëm yàlla. gëm on n'arrête pas la mer avec ses bras yewi Askan Wi est une déferlante que personne ne peut arrêter gannaaw yalla loolu nako duggal ci bopam kon ñi gërëm ñi ñu dalal fi jiiteel ci suñu mbokk wallu yi parce que dañu def intercoalition et ce sera cette intercoalition qui va remporter bu nexé yalla la majorité à l'Assemblée nationale ma dire ñi nga xam ne ñoo ñu toogal fii ci politique te Ablaye Sow mii jiite leen dama koy sanni xeer tout le temps nag waaye jàmbaar lañu ñi ngi liggéey liggéey bi mucc ayib ma dellu gërëm ki nga xam sama frère bop la nak sama xarit la ñu bokk assemblée pendant 5 ans ma sédel wa Kédougou qui a été un député exceptionnel il a défendu Kédougou bec et muy Moustapha girassi Macky Sall Macky moo xam lu tax mu bañoon mu nekk candidat pour jël la mairie de Kédougou moo xam li tax mu fexe ba ba suñu liste nationale titulaire mu génne ko ndax xam nga ni nag xam nga ni nag xam nga ni nag armada biñ ko aligné bu ñu duggoon assemblée nationale foofu ne rumbux moom xam na ko waaye li mu xamul mooy suñu suñu suppléant yi moy ñun rek parce que bu ñu leen majorité assemblée nationale laboratoire bi ñun la ñoy préparer projet de loi yi ñooy préparer euh tudd motion de censure du su dee war nañ ko def ñoy préparer commission d'enquête parlementaire yi ñun ñoy doon les députés à l'Assemblée nationale loolu la xamul woon kon def si ak sotti si rek la mbokki Kédougou est ce que xam ngeen ni Kédougou moi la région la plus riche du Sénégal est-ce que vous avez non non je crois que vous est-ce que vous ngeen Kédougou est la région la plus riche du Sénégal est-ce que vous ngeen Kédougou a été classée la deuxième région la plus pauvre du Sénégal est-ce que vous avez wa paradoxe boobu nag ngeen koy expliquer mané ne boo la première richesse district de Kédougou c'est pas encore les ressources minières de xam ngeen lan la souf si Kédougou am té mu doon mom dong régler la question de suffisance alimentaire au Sénégal bi ñuy ñëw jógee frontière Tamba ba nit ñi egsee fii mais li ñu gis ci suuf kenn xamul nu mu toll te suuf la loo xam ne loo ci bay mu sax c'est la première richesse xam or day le diamant day le pétrole day gaz day mais suuf du donc la première richesse c'est cette formidable richesse foncière de Kédougou et qu'on n'exploite malheureusement pas Il richesse bi nag doog qui ñëw les ressources naturelles les ressources naturelles est-ce que xam ngeen qui a or par année quest Kédougou que xamul avons et pourtant en termes d'indice de développement humain est classé deuxième Voilà, Kédougou est classé deuxième après Sédhiou est-ce que nous vous la jeunesse de Kédougou quand vous avez un travail décent quand tu yéen moo am un travail décent est-ce que vous savez que Kédougou est en train d'enrichir des gens sur l'international à coups de milliards Moi, moi je ne peux pas comprendre une chose am na lu comprendre te nag xeer bu ma leen la Macky Dakar woon na ko bu il n'a jamais gagné Dakar jamais 2019 l'année dafa gagné Dakar te lan la def dafa Khalifa Ababacar Sall tëj ko bloqué d'Adi def des transferts d'électeurs extraordinaires pour que le ne moom gagné Dakar en 2019 mais législative 2012 il n'a pas gagné Dakar Nous devons dafa àndoon ak coalition bu yaatu boo xam ne Khalifa Bon élection dem mu daanu ci locale nga sama doomu day et pourtant et pourtant su am a pouvoir ça devait être Dakar ça ne devait pas être Kédougou comment Macky peut perdre Dakar et gagner Kédougou dama nañu waxante ne ratez pas le train de l'histoire parce que nous sommes japp ni les régions périphériques n'ont rien compris et c'est là où il faut faire le plein de voix xam nous mënatuñu gagné Dakar nous mënatuñu gagné Thiès ñu gagné nous ñu gagné Ziguinchor pourquoi devrait-il gagner Kédougou pourquoi Kédougou est la région la plus riche du Sénégal on est ici dans la capitale Kérovine. Koufi Daoudanganam qui a l'impression que tu es dans un gros village. Timis Nyata Lampatak, on peut les compter. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, élection locale IVSU, mon mot gagné Kédougou. Est-ce que l'on y moi a moi nous avons des dirigeants. Nous avons des dirigeants qui n'aiment pas ce pays. Nous avons des dirigeants extrêmement faibles. Nous avons des dirigeants extrêmement faibles et corrompus. Parce que les âmes qui rek mënoon améliorer le sort de tout le Sénégal. Moi, tax ñu majorité leen majorité assemblée nationale Dès que démb ki nga xam ne mooy tête de liste à Dakar du ma en turam de ku vous wax ni bu ngeen ko nationale pour renégocier les contrats miniers day wax lu ko neex xam nga ñoom amuñu xam-xam C'est un problème Nous on vous a pas dit qu'on va renégocier les contrats miniers 2024 nous ñuy renégocier les contrats miniers. 2024 mais xam ngeen lu que leen wax dañ leen ne bu une majorité à l'Assemblée nationale la première chose qu'on va faire c'est que le code minier le code pétrolier moom la il njëkk a réactualiser parce que c'est des codes du passé complètement dépassés exonération yi nga a ne def nañ ko ci biir code minier yi nga xam ne société ngi fii ma tudd ko muy Sabodala y des milliers de tonnes d'or sont gagnées. génne te du fay impôts impôt Sénégal dërëm dërëm du fay impôt Sénégal est-ce que vous savez lan exonération du code minier Moi, qui ñu def exonération c'est que sous exporter dafa repatrier rapatrier les devises au Sénégal amul une entreprise minière pour rapatrier les devises au Sénégal dañuy génne une bi ko sur les marchés internationaux Londres wala Canberra les États-Unis virer xaalis bi directement dans des banques internationales Nous, dellu le Sénégal Quand kon yow perte nga personne perte nga devise loolu cuune weesu ko la première chose qu'on va faire c'est de rationaliser le code minier d'aller supprimer toutes ces exonérations qui ne se justifient pas la deuxième chose qu'on va faire moyen le contrôle des changes la troisième chose qu'on va faire c'est la responsabilité sociétale d'entreprise est-ce que vous les entreprises minières ils utilisent des produits chimiques qui atteignent la nappe phréatique a suuf suñu waroon béyee mais loi dafa ne ah dañu am lu wax responsabilité sociale d'entreprise mooy fu ñu nekk dañu war a tabax ay tali dañu war a andi éclairage public dañu war construire des écoles dañu war a les municipalités yu nekk foofu ban entreprise moo koy def fii aucune boo demee ci village yi wër foofu amuñu courant courant

commune bi moo ko état mënul taxaw Dakar ni man exonéré ci une entreprise minière de Kédougou amul droit bobu loolu suñu duggee suñu jëlé majorité assemblée nationale dañ ko génne ba dootul mun nek wayé waaye tamit dinañ dugal ci code bi ni bépp convention minière bu ñu signé day fa war jaar obligatoirement à l'assemblée nationale ñu saytu ko doga joxé la validation ñu jox kenn ben benn chèque en blanc mu toog ci bureau recevoir des soi-disant investisseurs il jox a ay milliards nous signé loo xam à 700 km, moom musul tek tànkam foofu poivre, lan la réalité bi jël ay village entier joxe ko ak à suuf jox ko ay multinationales loolu Sénégal contre lii la ñu mën a à partir de l'Assemblée nationale en attendant 2024 ñu jox ñu réew mi foofu nag la wax la renégociation des contrats miniers et pétroliers te buñ ne nee nañ ko def nañ ko def dégg naa leen ñu ne ñoom dañu ne huit cent quelques millions la ñu par année ci pétrole et gaz bi banque mondiale ne leen mun leen am loolu banque mondiale a raison parce que dañu jaay déjà pétrole et gaz bi foofu waxtaan mooy waxtaanee ndar la bu soobee yàlla mais ñu dañ leen ne. pétrole bi ak gaz bi ak secteur minier bi muy or muy zircon muy phosphate ñoom rek mënoon nañu andi lu mu tuuti tuuti milliards par an ci budget Sénégal est-ce que am ngeen ni loolu c'est presque égal au budget du Sénégal actuel mbokki Kédougou lii lenn la ñu jukki ci suñu programme waaye nag léegi bàyyi leen ma wax leen tuuti ci politique caaxaan faaxe de ma ne caaxaan faaxe dañu jóge ci élection il y a six mois il y a six mois élection la ñu demoon une partie du Sénégal a montré sa dignité et a tourné la page Macky Sall en votant pour Yemi Askan Wi ñu ñëwaat def intercoalition gën a yokk doole bi ñun ak wàllu malheureusement Kédougou ne faisait pas partie ne fait pas partie de ces collectivités du Sénégal qui ont montré qu'ils ont tourné le dos à Macky Sall Kédougou n'en fait pas encore partie pourtant Kédougou moo waroon jiitu ci loolu ndax fàtte biñ ko fàtte ndax ñàkk weg biñ ko ñàkk weg ndax ñàkk yéeg biñ ko ñàkk vous Dakar département Dakar vous tourner le dos à Macky Sall Kédougou na tourner le dos à Macky Sall Moi, tax un foofu ne ils ne sont pas dans le cœur des Sénégalais mais ils vont attendre pour mu 4 ou 5 jours ils vont sortir avec des mallettes d'argent parce que c'est des voleurs et je veux que Nyom que c'est des voleurs Macky Sall Macky Sall 2 milliards la génne pour campagne fan la gérer 2 milliards ban membre parti Moko cotisée. c'est de l'argent volé des caisses de l'État pour venir acheter les verts, pour aller acheter les Matamois pour aller acheter les Guéchorois, pour aller acheter acheter acheter Les nag dafa jot chacun d'entre nous jël ses responsabilités. Moi, vous comprenez, comprendre vous avez compris mais à partir d'aujourd'hui ce n'est pas parce que les leaders sont là yéen ñëpp ngeen génn su ngeen dellu seen cœur. ngir ñun de il reste dix jours de campagne on va continuer à circuler et on fera tout le Sénégal chaque jour bu ngeen sortez et faites du porte à porte ay allez trouver Aller trouver les Sénégalais là où ils sont dans leur lieu de travail dans les écoles dans leur maison allez leur parler et leur expliquer l'importance de ces élections Beaucoup na L'importance élec importance élections yi foofu laay parce que si ma ko naree lim day gudd trop te taxawaay bi yàgg na mooy yéen waa Kédougou est-ce que vous ngeen Macky Sall troisième mandat est-ce que vous ngeen d'accord Macky Sall déposer une troisième candidature xam ngeen ne pensez pas que c'est 2023 le 31 juillet 2022 sénégalais bu pouvez vous ci sénégalais bu bëgg Macky Sall sénégalais bu bëgg ñu ubbi une nouvelle page avec Yemi Askan sénégalais bu bëgg ñu jëlaat suñu réew moomal ko suñu bopp sénégalais bu bëgg ñu voté ay loi yoo xam dina jël en charge des priorités des sénégalais mooy dund bi wàññeeku nit ñi faju école yi baax waaye góor jigéen am Sénégal sénégalais bu bëgg sénégalais bu bëgg